Ibn Abi Sina da ko ne tudd naa ko yonent bi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam tudd naa ko wajul sëñ baara xoolal sëñ daa ne na ko wan baara ba ma lay def naa ci yow loo xam ne su ma leen kaamil nga lànk du deñ waaw moom sëñ baara xoolal jàpp sëñ daa ko tudd tudd ko na ko woon baara dërëm bu la jox lekkal soo laaxiraa la ko mu tuddee koy sëñ ko waaw waay ko war a Mm. ñu ngi doon toggal ak sëriñ bagaanoog ganaar ca ngay reer sëñ baara xool nag ganaar lay ndikkee sëñ lu ñëw fa suba teel fekk muy ndikkee ganaar mu ne ko baar ma defoon na ganaar boole bu ko lekk man koy lekk may sama ngay lekk ganaar bam sëñ baara xool daaraama saxu ganaar buñ ko yor baara laa nee na ma dee naa baara laa ma ko ci jumaat nee ma fu sëñ ko sama sëñ Fallu mas nekk ci riigu ngeen naa koy ñaari sa tëg sax bu ñoro bu sëñ baara defar ay ganaar def ci bool yan jokk bu dee nindee day dox ba nindi bu dee ëllëgee noonu bu dee fii noonu baar naa moo daa yóbbu gannaaw di ba suñ fan suñ si baar si man ma soog a ne ko waaw nu mu mel nu def léegi sobaree da ko ma sal tuuti si baar ko jëg suñ fan noppi woon mu si su ko gis moom hmm. sobaree da ko ci ma sal tuuti ñu liggéey jumaa ji ma noppi son trois si fan julli ba gesto der bi mu jullee la jox sëñ Baara ko jëna ko demal na sëñ Tuubaa juwaa ji la pellicule fi sëriñ ne demal bar sàq yaa nga kayal ñun Baara xool ji jumaa ji lañ jullee son trois cey ñoo xam fi ñu jëm de ak bar sàq ni mu méttee xam ne doom dëgg si de man bëgg sa sëriñ waxoon maa nga kayal ba foofu di de ba dutuma gis sax ma sa okas yendu fanaane gaar bu ndaw moom nag 63 sëñ Baara Xoroja turandoo kii siifal na ko kaay dem na sëñ Touba jumaa ja noppi sëñ Maodo xëy bu sunu njëkk a yabaan moom jumaa ja daa noppi ubbi buñ ko mën a ko demal na sana jaay jumaa ja noppi hmm. sëñ Maodo xëy fan bi ñu day dugg fii 63 ñu julli ko dara suñ ko lu jullee jox sëñ Bara ko jëna ko demal na sëñ Touba jumaa ja noppi sëñ Bara xool ja fan bi ñu day mu ne sëñ ma jow ma sàmba demal fekk ko waajuru sëñ Maodo ma dañ ko borom pësee mu nee na si borom jow ku ma góor ñi la te mënu ma doon jóg ndax li tax ma góor ma xool ni ko sëñ Thierno Diouf Lambaye naaya te jaar comme naaw dégg nga daanaka wax ne ñaari junni li ma ci xam mooy jóg sëñ bi rek laajal ba mu jóg ma jóg sëñ sëñ Modou ma doon jóg. te daa siyaar ji siib laat fekk fa sëñ Thierno Diouf Lambaye ci wàllu ko siib la sëñ Thierno wax ne maa ngi indi xar yu bari di xool ba xam kenn du ma ko leen xaram bi nee na mu Modou wàcc rek ma ko saam xar ma jooy xam ne jigéen laa mu dooma jaar benn te xoolal si mu bëri jóg pour si fi moom te Thierno kat néew si mu bëri la lu passé bi de ndax Thierno ko mag te Thierno gi sonn sëñ ko waaye tamit mu ne ma ñaar benn fëgal sëñ ba te sëñ Modou Badara Diop doomi sëñ ma Diop ma Samba la yaayam wax na ne foo dal naa sëñ ko ba ay at mosuma ko gis yaayi sëñ Modou Badara Diop nee na benn yoon laa ma say gis ndax sëñ ma Diop ma Samba damaa waxoon ne ma jigéen du xool sëñ ko ba te ni en nee na maako laaj sëñ bi waaw li ngeen ko doon fóotal lépp puñ ci kalam te nee na buñ koy fóotal dañ koy xooj ci ndox mu njëkk ndox ma bu noppee dañ koy naan di ko sangoo cë suñ nga ñuy fete si mur bari jóob moo yëlëb sëñ ma jóob bu jigéen ñi fetee jox ko mu yëlëb teg ne balaa fa dara mu mu yut ko sëñ ma ne ko su ma ne ko a jóg si bilaat boole woon na koog signace yi dafa ma ko def li jumaa bind ay téere na jàngal ko ko caabi nag buñ masaa dem ci dëkk nit ñi rang di siyaare waxtu war a jàng jot nii lay def may leen ma ci mudu ba bëri te ñëpp ni ci bunt bi rang di ko xaar ci sëriñ mu jàngale war a jàng génn gaa yi tàmbalee siyaare waaw sëñ mudu ba bàyyam si ñor siñ fal nee sëñ ndaam Jóob mag sëñ Mbàkke Madina bu suñ ko di soo doon jamono buñ na riis mm. maanaam bi sëñ ndaam demee سي شيخ جوم ماكو توك باراليس شيخ دار مدام لا شيخ في نه مودو في نه واي شيخ بابا لا شيخ وياسي مو مود توك سي مودو بدل جوم تا شيخ نكو ماك بار باراليس شيخ دار دافا لا شيخ في نه مول شيخ في واي مودو في نك شيخ مام كون موم سي بلاد لو بروخمو شيخ دار دم تا تاندغا مودو توك مودو توك سي مودو توك loo def na ko ci ci lu baax moom sëñ Modou Fadal te xoola bàyyam ni mel sëñ Modou Massa xel mu ñëw mi ñor na ñëw muñ taalibu bu ko amuñ taalibu bu ko de tuule ni tey moo tax mag ñi duñ bokkuñ ci si doy rek lañ bëggoon gëm kon esron maaram la ñuy màggal ajjuma ci la sëñ doy ci dëkk bi hmm. màggal goonu màggal gu xor gu ndax ci la si doon ñibbi si Touba fanaan si ma lañ koy màggal kon ku xey deel jang xasida ba alquran salaatu bi di jox sa tay ñaan nak aaju yi faju ndax bi so ko sum ñaan la te si doon ñu ci dëkk mooy esrono mooram waaw waaw waaw waaw waaw Baye Cheikh nee na magal gi du magal du magalu pokariw kon du magal magal gi du magalu pokariw du magalu pokariw magalu ta taataayu ak tuuti magal ak fàttaliku sew mm. ci la si luñ koy fàttalikoo nag mooy li si ko aneen muy alxuraan jëf si ak ko ko Maxtaar tan day doo ko waajal Abdourahmane tan day doo sëñ Malamine ko dagale ñoo ko waajal